jaru ko am na solo. dafa laal dafa laal sama yaay. jaru ko jaru ko du ku ñuy laal. la eh. kontaan nañu ku laal waay. Eh. sama yaay. Eh. xam na laa nga laa laaj. kontaan nañu jërëjëf. jërëjëf daal. Mm-hmm. Mm-hmm. waaw ñu ngi ñaan daal. yàlla yokk jàmm ci réew mi. amiin waay maa ngi nuyu suñu Saliou Mbacke Balla Diop. Adama mm-hmm. Boye Fall ko di jëyee bëgg ñi. <laughs> Sénégal bi yëpp ñu ngi koy bàyyi xel Adama May sa yaay ne ñoo ngi nii en direct DTV. waaw bii daal dama ne dama ne ñëpp a ngi nii toog di ñëpp a nii toog damaa bëgg sa yaay génn génn première première dama génn damaa bëgg sa yaay soxna May. soxna May. soxna May. dama ne en direct lañ nekk nii en direct damaa bëgg sa yaay génn def première sorteem fii ci DTV ñu xam ne sa yaay fii la génnee def sorti. di Yves. loolu. jox ma ko. askiya dox ma askiya wala ajatu ngoy rek ani sama jëkkër yi nag bu ñëwee yaay premier invité bu ñëw jox la xaalis bëri bëri bëri man de liggéey ma tax jeexugut moo tax maa ngi sow rek bari lay la bari fi mu toll nii maa ngi sow rek engagement bi ma jël dama engagé oh barki sëñ dama ne dajee a ngi nii. Zeyna ngi nii. Tafa Thiam ngi nii jël sëñ Fall. ñëpp ngi nii toog ñoom foofu ma seet seet la ñu. ñu def waxtaan. dajee yëpp incha allah. looy wax Askia Touré Askia Touré. Askia wuyu dajee yëpp la. DJ Yves. DTV. DTV. Maam moo la dugal en direct ci télé bi nii. ah man Thierno ma en direct. en direct yaa ngi en direct DTV nii waaw. léegi léegi loo bëggoon nag léegi ma def. waaw dañu dañ doon waxtaan sànq ci ci Soxna Ngoy ñu wax ci li nga xamante ne mooy communication beeg sortie bi daf fekkoon sax ñuy tàggoo parce que sànq la ñu bëggoon la bëggoon nga dugg. ñu wax rek lan ngay yan kàddu ngay ngay dénk sénégalais yi nga xamante ne ñu ngi seetaan émission bi ak euh, li nga xamante ne jur na ay riir ci ci màggal gi. asalaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakaatu. waaleykum salaam. xanaa damay wax nag alhamdulilah ala kulli xaal. Mhm. ne lu ñëw rek nga téye ko ni mu ñëwee. Mhm. ndax dama yaakaar ni euh, la may jiital ci sama ngërëm. Mhm. mooy gërëm gi ma yàlla def ma doon jullit. may gërëm it nag yàlla bi ma defee ma tudd Mouhamed. ndax xam nga man kenn du ma jeex. may gërëmaat yàlla it ba ma defee taalibi Sëriñ Tuubaa. may gërëmaat yàlla it mu fexe ba ma tàbbi ci màggal gi ba pare mën cee tàbbi Serigne Saliou Mbacke da doon wax de nit ko fonk màggal ak ku fonkul màggal su màggal ga weesoo da ngay gis ki ko yàlla def ak ki fonkul ni ko mm-hmm. màggal mm-hmm. man ñaari programme laa mooy màggal ak gàmmu yi mm-hmm. des yëpp wu ma ci euh, màggal nañu ci bismillah rahmaani rahim mu jeex si alhamdulilah rabbil alamin Serigne Touba di jur safar la nattu ga mat yàlla di ko fay te def na woon sama bis bii ku ma si jàppale wala nga solal ma ci wala nga def ci jéego la ma yàlla dafay ëllëg ñoo koy la wax kon naa yàlla dina dafa ne ñooy bokk la wax xanaa xanaa suñu bàmba baax waaye yow léegi euh, soo demee euh, soo amee euh, ñi xale yi football nii coupé suñu dugalee bit dañuy tëb yëkkati seen loxo ñu yëkkati leen te football tekkiwul dara de ah. mm-hmm. waaw ku toll ne Serigne Touba mm-hmm. xeex lu toll ak juróom-ñetti at gañe mhm. te sagum too a na lax daa yi tur ren la wat mhm. ah mhm. te yëkkati ñaari loxo bi waaye sëñ bi waaw xanaa soo mënul sax dekk ak bokk ci combat ba combat bi ndax moom moom mosul woon am kenn ku taxawoon ci gànnaaw naan ko amin bi lañ ñaan yàlla dëgg la te moom luñ mu ñëm ah, ah amul kenn koo xam ne doon na ko fekk am na koor goo xam ne dafa bëggoon a génne Euh, euh, muddum koor mënu ko génne mu jël euh, xadaf laxa manta zakka daf ko xasida daf ko murum koor mm. Mm. nit koo xam ne dafa daj loo xam ne moom rek ko daj kenn sonnal kenn jàppale ko kenn sonnal ci moom moom kenn la rek mm-hmm. mu ñibbisi ah waaye ndeysaan yaa xëyti xanaa su amee bésam bii mm-hmm. yàlla dimbale la yow ngay ngay ngay sénégalais rek mm-hmm. ngaa mën a wax jërëjëf yàlla ci li nekk la nga mooy na ngay demee marché man naa mu lu sax am soxna si di moo gën a ma di jël sama xaalis bi di ko jox koy fay ma koy def dana xool naa sama soxna takku ci yàlla farata yàlla sunna Muhammad mu yem fa mu yem ci man ma dëj ko fa mu ko dëj mu toog fa mu toog kon war naa ko mën a teral mhm. la ma ko teral nag mu ne ma dama ci seet benn bis lu bis bi nga xam ne moom gën a fonk mhm. mooy mooy mhm. jël ay yëfam ràngoo sol ay yëram ah di sant Serigne Touba ñii di ci wax ay yëf ak di ci wax ay fecc ka dafi yëf yooyu ay soxor la ah doomu aadama nag su fekkee dafa am lu ko naqar yi na ko laaj yàlla ndax yàlla su la dimbalee Euh, parce que adduna bi ni mën la ko jógee mhm. yàlla dimbale la ba nga réglé ba mhm. bokkoo ci dara mhm. bokkoo ñun ñu palmarès ci ay jikko ci ay jëf ak yooyu tout ça yàlla boole ak nit koo xam ni ku xam adduna di seetlu da man tukki kat laa man ku xam lu xew laa man daaw du Sénégal du ma ci sax toog waaw ma jël sama teraanga defal ko sama soxna man jël sama teraanga defal samay doom jënd samay gëléem jënd samay nag jënd samay xar jënd samay ginaar jënd samay def ah di jënd samay fruits ah ànd ko ak samay mbokk ak samay xarit ak samay am di jàmm ñuy jógee Banjul ñuy jógee Londres ñuy jógee Sierra Leone ñuy jógee Nigéria ñuy jógee Sénégal ñu ñëw ma def ma dem Serigne Touba ñoom lu wax. Mm-hmm. man de sama sant rek Serigne Saliou Mbacké rek laa koy tàmbalee. Mm-hmm. ndax man ku wax Serigne Saliou Mbacké rek man ngay santale. Mm-hmm. Mohamed yaa ñëw fa jàng fa te la muy wax man nii man lay waxal. ndax li mu wax ci Serigne Saliou ci lu mu defal nit lu baax yëpp man ñu rek lay waxal. a wax jërëjëf loolu rek man sama yoon ne ci ko wax man du may déglu sax ay réseau damay dégg nii rek. Mhm. Ah, ah, ah, man Thierno moom nag. Mhm. bi sëñ bi dem ndar. moom la turam na moom la yebaloon. Mhm. moo tax mu tàggee ci mbir mi nii ndax dafa am yëg-yëgu màggal. ndax moom turam doom fekk na bi sëñ bi di a asirul mal abrar boobu ngay dégg. moom fekke naa yu bare bare ba te sëñ bi moom rek la umpantewul ci lu bare bare bare bare bare bare ci yoon bi mhm. te ba mu jógee géej lépp ci Cees ga turandoom boobu la ko jox kon faaw mu faaw mu def nii comme faaw mu fonk màggal mhm. moom euh, euh, euh, ginnaaw màggal gi la may fonk mooy Sëriñ Saliou mhm. ndax Sëriñ Saliou soo ko gisee wala nga nekk moom wala mu tëfli la koo nekk ah ko déglu ndax da nga naan accam ndax reetaan loolu jeex na ñun ñu Sëriñ Saliou Mbacke dimbali ah xet ñu xet ci moom. ba mu def ni nit ñi def waaye que fekk na loolu boo gisee ñu wax si yow dara du feebar muy gëm wala muy xeex wala ñu ndax suñu saalu jeex na. Mhm. man daal yàlla dimbali na ma ci mbaaxam ba suñu saalu ëpp ma. Mhm. ba suñu saalu def ma nii maa ngi koy gërëm di ko sant kon wasalaamaaleykum wa rahmatulah taala barakaatu. jërëjëf gërëm nañu la. jërëjëf jërëjëf. Aïcha mu ngi noonu kon kontaan nañu. Euh, ci Mame Thierno jërëjëf merci beaucoup Moustapha Thiam. Mhm. kontaan nañu merci beaucoup. Euh, di gërëm ñu doon seetaan ñëpp Sophie ci réalisation bi jërëjëf. Mhm. Euh, Mbaye waaw. non xaw ma tur bi nuyu naa ko euh, ah, ah. bi nuyu nga ko loolu mooy lan Mbaye. askia <laughs> ah d' ñu ngi gërëm bu baax a baax Sophie ci réalisation bi merci beaucoup Issa ci lumière bi Laye ci son bi Papa ak Ibrahima ci caméra bi. Mhm.